sargal nañ ndaw yi nga xamni ni ay jàngkat lañ deug moy ay jigen yo xamni ni ci bir réew mi lañ joggé tollu nañ ci fanwer ak juróom-ñaar yo xamni ne nii ñoo bokkoon ci concours bi ñom nak ñu ngi leen jëlee ci classe yi nga xamni ne nii moom mooy quatrième ak seconde. concours bi mom ñu ngi koy def depuis 2011 liko sabab moy dañu constaté que ni euh, jigen ñi dañuy xawa ragal à l'époque surtout ba légui sax des na euh, euh, orienté wu ci série scientifique yi. mu nekkoon loo xamante ne lii li ko waraloon mooy dañu dañu daan dégg wala ñu leen doon gëmloo que ni euh, matière scientifique ñi góor ñi ñoo ci war gën mën a xarañ mu nekk loo xamante ni lii tegu teguwul ci xam-xam wax jooju ñu jéem a doon fexe nag nu ñu koy dindee ba nga xamante ni muy góor muy jigéen kenn ku ci nekk ci li nga mën a euh, góorgóorlu ba euh, réussir ci tekki si muy science muy leneen surtout science ñu mën ci fekk ñu mën leen ci fekk ñoom jigéen ñi. ndaje bi nag dañuy sargal ñi nga xam ne nii ñoo jóge ci fukk ak juróom-benn académie nekk fii Sénégal ren nag ki nga xam ne nii moom moo jëloon Miss Mat ci atum 2022 muy Ramatoulaye kan nag nekk ci lycée scientifique d'excellence de Diourbel nag moom moo ñëw nekk Miss Science. muy loo xam ne nii lu am solo la. loolu di wane ne donc ñu ngi garder le cap te surtout ñu ngi orienté wu ci science parce que quatrième déjà orientation science amagul mais ba mu demee seconde def na seconde scientifique ba pare nekk ci lycée d'excellence scientifique. donc muy wane ne ñun aussi suivi boobu la ñu bëgg pour que xale yi bañ a euh, concours bi bañ a juste un concours ponctuel boo xamante ne bi tey da nga da nga da nga da euh, après mën nga besewaat te duñ la suivre ñun dañu bëgg ku ci ko xas ba commencé daal jël benn benn voie bi nga garder la cap pour que nga mën a dem université sax pour mën a euh, def say euh, mën a euh, embrasser une carrière scientifique ndax ñun loolu lañ ci jublu du rek orienté wu foofu mais c'est réussir ci Euh, euh, liggéey ci xarañ ci ba mën a développer Sénégal. kii di Khady seen nga xam ne ni mu ngi jàngee ci établissement Kër Badiane May nekk ci académie de Diourbel nag moom moo gagné lu ñu Miss Mat muy ndaw yu xarañ yoo xam ne ni ñu ngi topp tànk ki nga xam ne ni moom leen tuddee bés bi muy médecin général faatu Fall moom nag moom moo jiite hôpital principal bu Dakar. mbégte bu mag lañ yegg parce que après effort bu ñu consentir ak. Euh, sunu parents yi nu ñu taxawwee sunu école nu ñu taxawwee ak sunu camarade de classe yi dañoo dañoo kontaan lool parce que lii mbégte kese lañ si mën a am. lii ndamu science bi la ndamu jeunesse bi la. ren nag thème bu am solo la ñu jàpp ci bës bi muy loo xam ne nii dañuy wane ndaw yi lan lañu war a liggéeyee ngir li ñu duppee changement climatique ñu mën koo xeex fi nga xam ne nii moom mooy Sénégal. chaque année nag thème bi dafay nekk thème boo xamante ni dafay lié ak métier scientifique loolu moo tax ren ñu wax ci changement climatique ñu war nag si am ñu xarañ. ñoo xam ne dañu jàng science pour mën koo dékku ëllëg te duñu xaar ñi jóge ci biti ñëw di ñu wax naka la ñuy def pour mën a euh, saafara suñuy jàngoro ci domaine boobu. loolu moo waral ren ñu jël thème boobu ci changement climatique bëggoon nag jigéen ñi euh, représenté ci pàcc bu am solo. daje bi nag am na solo trop ñi nga xam ne nii ay ndaw lañ sargal nañ leen ci seen kanamu ay morom muy lu am solo loo xam ne nii dina tax ba ndaw yi yokk seen jàmbaar muy lu am solo loo xam ne nii dina mën a yóbbu Sénégal ci kanam.